mbokk site internet Adouna Buzz TV nuyu nañ leen bu baax ziar leen jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bi di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki nga xamante ne nag moom moo nekk Ndiaye Drapeau ñu gën koo xam ci turu Maman Ndiaye moom nag jamono ji rek dafa daal di rek génn àdduna ñu xam ne ne ki nga xamante ne moom mooy Maman Ndiaye nekkoon na grand supporter bu mag a mag a mag bu ñu ràññee lool ci équipe nationale moom nag la mu daan faral di sol ak yéreem yëpp daf koy def li nga xamante ne moom mooy drapeau vert jaune rouge jamono ji nag daal dinay ñàkk bakkanam ñu koy jaale bu baax ay mbokkam waaye tamit di ko jaale Sénégal yi